leen nii bugaan ak ki nga xamante ne bii mooy fis de Sadio fii nag damaa bëgg mu tàng jër bëgg mu mu set damaa bëgg mu nekk cin lu cin luy bax bëgg mu mu am ruq bu set ak ki nga xamante ne bii mooy fils de Sadio fils de Sadio jëli naa ko keroog am na lu mu wax lu garaaw bugaan ayca euh, Ousseyn mu ne dafa fàtte partenaire yi mu gaaw rek. waaw di jégaluwaat rek ci kàddu yi ma jël. Hmm. bu baax. Euh, Katharina parce que année passée programme yi ñu def yëpp dafa ànd ak ñun kon Katharina vraiment ñun amuñu fayam ci jàppale bi nga xamante ni mi ñu koy jàppale ñi ngi koy xaar nag année bii nii vraiment mu ñëw parce que tey bokkoon na si ñu waroon a habillé mbëri ak ñi fi toog ñëpp mais xëy na tardivement bi affaire bi tardé depuis démb moo tax affaire bi tardé kon Katharina vraiment ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant beneen bi ci des muy kànj sama frère muy borom TDR. vraiment moom it euh, ñi ngi koy woo ci li nga xamante ni mooy journée bi di ko xamal vraiment ñi ngi xaar li nga xamante ni mooy bâche am ak jàppale bi muy jàppale Ouzin production kon vraiment amuñu seen fay bu baax a baax a baax merci jaajëf Ouzin ñaari champion yooyu kaay leen ni fils jegel ni cey bii combat cey le 28 fils de Sadio Bougane ah Bougane jox na ko loxo de fils de Sadio Bougane Bougane jox na la loxo de nuyuwuma ko wax dëgg. lu tax nuyuwoo ko. nuyuwul nag. <laughs> ayca kon ma bàyyi la nga nuyoo comme que jox nga ko loxo mu bañ. nga wàcce micro bi tuuti. auzu bu ñu santee yàlla di julli si yonent bi di ñaari waajur. di nuyu axlu làmb. di nuyu Sénégal. di nuyu waa salle bi. di nuyu Ouzin production bi nga xam ne tey moo décroché combat bi. ma ne fils di ñaanal fils de Sadio jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal journaliste nga xam ne ñoom ngi ñëw tey dékk ñu fi micro waaw di sant àdduna di nuyu Sénégal di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di wax ne jërëjëf sama turandoo Serigne Saliou Mbacke yaakaari jaam ñi waaw di nuyu nag boo gisee nag damay jiital si nuyoo bi di nuyu sama papa sama xarit sama lépp Père Diaw di ko nuyu di nuyu waale waa dëkkam waa waaw waalo di ko wax ne ko Père Diaw tey bu ma nekkee sa doom ma ñëw di bëre ma toog pendant trois ans quatre ans bëre wu mu jàppale ma tey ba ma ñëw bëree yàlla suñu borom suturaal ñu ñu ñëw ba war a bëre waat grand combat à cause que Père Diaw di ko nuyu bu baax a baax a baax nag Ouzin Production nag di ko nuyu di ko sant baax di ko gërëm di ko wax ne ko dégg na si man lu tax mu war ma bañ a tëgg dégg na si fii sa Sadio mi lu tax mu war ko bañ a ndax xam nañ axlu làmb ne mu déroulé lépp di nuyu nag Cheikh Modou Karam Mbacké Noreyni di wax ne lii nii ma tol nii dama bëgg ngeen génne ko bu baax a baax ndax Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni dafa nekk taal bi Serigne Touba di liggéeyal Serigne Touba bëgg Serigne Touba nawloo ko bëggul ku dul Serigne Touba Cheikh Modou Kara Mbacké Serigne Touba ne alxadimiya day dafa réew Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ñëw bëgg dim may ma ñëw bëgg dimbala jaam ñi bëgg dimbala jaam ñi nag moo tax mu ñëw ne alxadimiya alxadimiya gi mu woote ne nañ koy dund buñ koy dund suñu réew mi dana defaru duñ ko jëggaani fee lu ci bëgg mën nañ ko fay am ndax Sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni bi wax nañ Sénégal na jamaa am na pétrole du tey kon si alxadime gi buñ ko dund Sénégal fii lépp dana fi génn boo gisee mu andi ko fii nag dama bëgg dimbal sama mbokku mbër yi di leen xamal leen Sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni ni képp koo xam ne yaa ngi dund alxadime ya da si sant sa bopp da nga si gis sa bopp da nga kowee te ñëpp dañ la dégg moo waral si may ma ñëw di ko nuyu di nuyu waa Jeysun waa 313 ndax jamonoy xare ba dar jullit yi dañoo nekkoon 313 yéefar yi nekkoon 1000 et quelque jullit yi gagné leen Cheikh Modou Kara Mbacké ñëw def 313 di woo waa Jeysoon 313 bi yëpp dinañ wax taalibe Cheikh Modou Kara Mbacké ñore nii ak jëruñu Cheikh Modou Kara Mbacké ñore nii ak doomu Cheikh Modou Kara Mbacké ñore nii ñoom baram baax ñëpp maa ngi leen woo sama bis di leen sàkku ñaan waaw si jëmmi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ñore nii maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu suñu dëkk waa Guineel waa Madina sëñ Mbakke Madina waa Touba ga nga xam ne fa laa dëkk di leen nuyu Gasama Tiim Naar Bawal yëpp tund Bawal bi yëpp maa ngi leen nuyu ak tund suñu bi di nuyu nag sama rakk yi ma ànd ak ñëw fii men rëg rëg numéro 2 ak sama yaay maa ngi laam ak euh, sama gars yi nga xam ne ak Bamba ñu ñi nga xam ne ñoom laa ànd ak di leen ñëw xam ne tey di woowaa ASC Juba e sama combat bi képp koo xam ne yaa ngi nuyu ASC e Jubo rek wala ngay turu ay e Jubo maa ngi lay woo woo waa Kédiawaay waa Daaru Xan école de lutte Balla Gaye di woo sama patron sama papa Balla Gaye numéro 2. nuyoo dana may woote ndax bés bi. waaw baax na waaw woote bi ci fin bi. c'est que bés bi. waaw war a woo nit ñi ndax dañoo ñëw bii suñ premier grand combat arène nationale. stade dañ ko bëgg a taaral moo tax ñii ñuy woo dañoo wax ñu dimbali ñu. monsieur le dañoo bëgg maa bëgg nga jëndal ñu bee man ak Cissé Sadio mi ndax ñun ñëpp say rakk lañ ndax bis bi dañ koo war a taaral nga jëndal Cissé Sadio ay bloc jëndal ma ay bloc ndax Cissé Sadio mi moo may may maa koy may kii mënuñoo bëree ba rayante man ak moom damay bëree moom yàlla may ma dab si kawam wala yàlla def leneen comprendre ma di ko ñaanal jàmm nga jëlal ñu ay bloc ñu jëf la tout jëf la tout suñu monsieur le maire yi jëlal ñuy bloc Racine Talla. Baal Sadio baal Sadio mu nuyoo Sadio ay loolu ci fin bi la yéen a di woote. si yonent bi di sant suñuy ñaari maa ngi sant ñu fi teew ñëpp. di sant ñu ma àndal xam nga ku si mel ni Zallo numéro de Cheikh Sarr di sant ñoom mbay di leen nuyu. di nuyu gaa yëpp xam nga di nuyu gaa yi ma àndal yëpp di nuyu gaa yi nga xam ne ñoom laay àndal ñoom Souley di nuyu sunu waa écurie waa Tay Shinger di nuyu Eumeu Sène di nuyu Cheikh Ndoye di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si écurie bi mm-hmm. fils de Sadio le 28 Ouzin production dafa def lu rëy barki démb maak Idi dañ faa ñëw nga ne bugaan benn jooy laa koy jooy bugguma sax combat yu yomb yooyu combat bu metti laa bëgg sama diggante ak moom. kii du mbër ay kii daa waral a bàyyi bëre mu dem nekk waxtaankat man damaa yaakaar si làmb mbër laa man damaa yaakaar si làmb du ma waxtaankat moom daa war a dem ci Cheikh Modou Kara moom muy wax. mu jéem ko def xam nga genre kii yooyu noonu mooy taalifkat yooyu noonu mu dem taalifi ñun ci làmb la ñuy wax mu ñëw fii jël suñu temps bi yëpp ñu ñaa ngi war a dem nelaw demoon entraînement fajar gi mu ñëw fi di wax di xamul kii mooy loolu. <laughs> waaw xam nga. kay kay kay nen da ngaa war a daw ne waxtaan. da ngay wàccee micro da ngay wàccee micro tuuti. mais su ko wàccee doo ko wàccee tuuti de mu micro bu ko sësee mën a wax. micro bi yàqalu man duma def nit laa. Ah, demal man du ma def nit laa. nga loo bëgg a wax moom dama ko respecté moom na ma respecté. man li ma gëm na naa ko gëm moom li mu gëm na ko gëm ñun ay Sénégalais moo ñuy seetaan àdduna moo ñuy seetaan mm-hmm. fii sa Sadio mënu maa tax a wax lu mu wërta wax. Mm-hmm. fii sa Sadio mënu maa wax loo loo xam ne bëgguma ko wax. Mm-hmm. kii man maa ko dàq si téeméer fukki junni yoon. mais man ñëwuma fii pour wax man dama fee ñëw. tey pour remplir sama contrat jàkkaarloo même ko combat boo koy jaay. tey nga war doo wax à part jaabante journaliste yi le 28 barke alxuraan fu ñuy waxee maa fay toog du ma sa morom si dara. nga ñëw fii naan ay du ñëw fii pour wax wax moo ñu fi indi boo xamoon ne doo wax. waaw wax li fànn de amul leneen de mais mais mais mais bugaan bi ñeme na la. waaw xam nga dafa ñeme ku mu dafa jël ku mu fii sa Sadio li problème am mooy dañ ñu ko bugaan rek xamul kan mooy bugaan mu jël ma dañ ñu ko bugaan rek waaw naan ne ko lan naa nekk dëxin fii sa Sadio sama diggante man ak moom lépp loo xam ne lu fay am maa koy def te maa ngi ñaan yàlla suñu borom. waxaatal loolu waxaatal loolu nee naa la la fay neex. man maa koy def. gis nga kii gis nga kii maa ko dàq man maa ko dàq làmb man yow bokkuñu yow da ngaa fàtte làmb bëre yu bees yi damay ñëw walla la ni bëre yu bees moo yor làmb da ngaa yow ay sénéxal nga dese ay sénéxal ay kotum bii rek ay yu yàgg yooyu noonu bëre yu bees yi ñëw ma jàpp mu leen balaa une minute ma tàggoog yow ko wax fii incha allah balaa une minute waxoon nga ma ko keroog da nga koy confirmé waat ma ñeme woon kii du ma bëreeg moom damaa yàgg def naa neuf combats sept victoire laa am man teglewu ma ay defet ñëw ma fii di ne yoo xamante ne mooy loolu xam nga kii bi mu ko jëlee kii bi mu ko jëlee kii bi ko jëlee dama ne la kii boo ko jëlee àdduna yëpp dañ ñëw dafa bëri wax barki alxuraan barki alxuraan barki alxuraan li may wax nii li may wax nii bu amut bu amut wallahi mu ko jëlee ñëpp dañ ñëw dafa bëri wax fii sa Sadio dafa maa xam taxaw ma ko fii sa Sadio dama ko xam ndax moom te nga bàyyi nag fi ngay jëwër yëpp kenn ko ne ngay dem naan am naa combat dem di dem sama ay nit man maay bugaan borom dëkk bi dama ne nga xam fi ngay wër di dem di wax nga xam fi ngay dem yëpp samay nit ngay dem rek chaque jour nga dem foo dem nag jox nañ ma écho sax adversaire ñëw na fi di wax pour ma jàppale ko ci combat bi da nga dugg nag ba dugg musiba man nag amatuma sax lu may wax ak moom kii amatuma lu ma koy wax comprendre nga yow baax man. man ñi may jàppale xam nga xam ni carrément dañuy jàppale ku man dew ma di wëri jàppale man may toog ñu may jàppale nga am ay. xam nga ki lan ñoo ñu boole xam nga lan moo ñu boole man ak moom ah turu papaam fii sa Saayo Saayo Ndiaye barki alxuraan moo ñu boole turu papaam Saayo Ndiaye moo ñu boole barki Seydina Ahmed dañoo amul si capacité bëri dara. Ah. Eh. mais est-ce que xam nga ki ngay wax. Ah. fils de Sadio. le 28. kii neen leen moom mooy daw sant. wallaahi la asim kii bu ñu runkum daje bu ñu jàppante boo xef doo gis jël ba na dem simbi ji <laughs> dama yow man kii am envie sax tontu ko du ma ko def ndax xamala moo tax maanaam wax yi muy wax nii yëpp yëpp yëpp moom xam na ni day daanu ñi mu àndal xam moom ñi mu àndal ku mu ne wax làmb ji dañ naan ko war a woon jël boo boobu moo la mën téeméeri junni ah. jouru làmb ji damay ñëw bëre moom bëre xale du ko xaar arbitre ba balaa arbitre di siffle sax ma téye ko daan ko arbitre siffle waat ma jàppar ko daan faalewu ma ko sax kii lijjantiwu ma yàlla xam na ni bu arbitre siffle dama koy jàpp daan ah. wallaay wala lu mu gëm laa nee na bu arbitre siffle mu jàpp la daan waa li am suba yàlla suñu borom moo ko xam mais yàlla na ma yàlla suturaal maa ngi woo ñëpp maa ngi woote ñëpp amutuma lu ma koy wax non amutuma lu ma koy wax ma dama ne balaa arbitre siffle mu daan la man li am suba xaw ma ko yàlla suñu borom moo xam li am suba yàlla na ma yàlla suturaal laa koy wax si loolu amatuma leen lu ma ko waaw bu at bi suulee incha allahu rabbi maa ngi maa ngi toog sa Sadio nee na nee na dana nee na dana ñëw si man. dóor ba waay. dinaa ko dóor ba dootul am ba ñu kii taali ba ñu taali ba ñu mu taali fii ko des dina tal leneen lu dul taali. waaw. wallaahi dootu ma ko tontaat si loolu. Hmm. damay nuyu senegal di woo ñi nga xam na tey dama bëgg ñu taaral bis bi di woo di woo président la Diop maa ngi koy woo si bés bi dana ma jàppale waaw suñu grand euh, monsieur le maire Ahmed Aydara ñu ngi koy woo baax danañu jàppale ñu ngi woo président mali Gakou xaritu Père Diaw danañu jàppale bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy woo maa ngi woo DG Kandji sama papa sama mag la di ko wax ne nga ñëw jàppale Ouzin Production Kandji DG yow père Kandji xam nga ma xam naa la man ak yow démb la woon tey soog di ñëw dama bëgg na nga ñëw jàppale ñu jël si wàllu béy yi jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax a baax di woo waa Géejawaay di woo école de lutte Balla Gaye yëpp di leen woo di leen wax ñu ñëw jàppale ma si bés bi di woo nag sama papa sama xarit waa Pape Dieng borom EDA maa ngi koy woo ne ko béy incha allahu rabbi dinañ la ko andil nga jëlal ñu béy yëpp Pape jee borom RIA sama mag sama papa sama kilifa maa ngi lay woo ak membres yi nga ànd ak ñëpp nga xam ne yaa ngi ànd ñoom di liggéey si RIA nga xam ne ñu ngi nekk say emploi di liggéey la yow liggéey bu rafet maa ngi leen woo ñoom ñëpp paa RIA di leen woo sama bés bi ñu ñëw ñu jàppale ma di woo waa Géejawaay ASC Juboo ASC Juboo maa ngi leen di woo ASC Juboo maa ngi leen di woo waa Daaru Xan yéen wax ne képp koo xam ne yaa ngi nu yaa ngi dund ASC Juboo mu nekk sa biir xol dama lay woo le 28 octobre ngeen ñëw jàppale ma si bés bi incha allah rab di woo suñu waa dëkk nag waa Guirñel waa na Sëñ Mbàkke Madina waa Nuureen pël ñi maa ngi leen woo waa Màkka Jaane maa ngi leen woo sëñ Babacar Jaane maa ngi lay woo sëñ Alaaji Jaane maa ngi leen woo yen ñëpp sama bis maa ngi leen woo maa woo sëñ Yaara Mbay Touba waa Touba maa ngi leen woo baax a baax sëñ Yaara Mbay sëñ Yaara Mbay yow xam nga ma xam naa sa doom te lépp mu ngi war a bëri le 28 octobre waaw suñu mbay maa ngi lay woo di gën a sakkuwaat si yow ñaan bu baax baax baax baax a a baax di woo senegal di woo adduna di woo sama papa bu baax baax a baax a baax sama papa ji may woo nag mooy sama papa ji nga xam ne tey bu ma jógee mu jàpp si sama ay mbir kooku nag damaa war a laaj mooy kan. kan la. kooku mooy Massata Ndiaye di maksi si Aziz di woo sama papa Massata njaay bu baax a baax yéen la yow xam nga man xam naa. dama bëgg nga gën maa jàppale bu baax a baax a baax képp koo xam ne rek yaa ngi jël sa course di ñaanal bugaan di wax asadu an laa ilaha illallah asadu anna muhammad rasulullah di woo murid yi di woo tijaan di woo xaadir di woo laayen yi di leen wax ne maa ngi sàkku ñaan si ñëpp di nuyu nag sama gaay yi xam ne ñoom laa ànd ak wax ji nag bu débordé ñu xam ne matalik doom aadama la bu juboo rek ñoo xam ne nag waaw loolu lañ si jublu woon di nuyu sama adversaire di ko ñaanal jàmm saa su mooy mu am jàmm ba le vingt huit incha allah yàlla suñu borom def ñëw mu ñëw làmb ja ma jàpp daan ayca fils de Sadio <laughs> li ngay wax sax xam nga ni mënul nekk. Ah, waaw maa ngi woo monsieur le hmm? Hmm, ñëpp bu ñëwee ma daan ah. dama koy daan Balla Gaye ñëw ma daan ko Sa ñëw ma daan ko Lac de ñëw ma daan ko ku ñëw ma daan waaw embarande moo mën embarande loolu da nga woon da nga woon sama patron moo mën patron kon emprunté bi mooy mën emprunté lool leeralaat ko loolu dama ko Eumeu seen moo mën Balla Gaye ah. moom man maaxuma le 28 incha allah mooy lancement sëñ Bay sëñ Bay xam nga man xam naa dégg ko sëñ Bay sëñ xam nga ko ok jërëjëf nga dem entraîné da ngay gëm sa boobu sëriñ yi defuñu lu dul ñaanal la lépp xolo la benn loo entraîné wul du la fekk fii si biir géew bi maa ngi woo monsieur le maire Isaaxa Diop di ko wax na ñëw jàpp si bolo ji bu baax a baax a yàgg na si jàpp mais da nga koy woo na ñëw jàpp si bolo ji di woo maam jaara faam di ko wax na ñëw jàpp si tigéey bu baax a baax a baax xam nga di woo ku si mel ni Moussa Ndiaye itali maa ngi koy woo bu baax musa Moustapha Gueye banque Cofina maa ngi koy woo xam nga Sala saw Modem dem maa ngi koy woo Mourtala Kofina maa ngi koy woo Anam Mendy Maam Jaara Fall France maa ngi koy woo Assane Sall France maa ngi koy woo Ibou Sène Koribar maa ngi koy woo maa ngi woo Topito xam nga di woo Ibrahima Thioune di woo sama turandoo Ngaraaf Mbay di ko mu jàpp si bu baax a baax moom ak ay doomam fàlloo